bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñoo ngi ñaanal sëriñ Tuubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi sunu boroom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram kàttanal ko ba naal yi mu naalal lislaam suñu borom bàyyi ko fi ba mu àggalee yépp te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi mbokk yi noo nga amaat mbégte di leen nuyu ci jataay bu tedd bi nga xam ne ñi ngi koy amale fii ci jumaa ju mag ji nekk ci Touba ngir fas yéene ànd ak yéen siq ko ak daayira muxaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso xam ngeen ne su weeru koor masa aksi danañ dund ci Tuuba ni nga xam ne ni la sëriñ bi daan dundale weeru koor moom mi nga xam ne ku delluwaat ci ay xasidaam gis fi mu teg weeru koor ak ni mu ko fonke bokk na ci bokk yu ñu bari di nettali di wax ne su weeru koor masa jub lépp loo laaj sëriñ bi mu jox la ko ne la xanaa danga koy waajale gan gu tedd gi su weer wi masaa di tàggoo it loo ko waxati mu ne kenn xamutut looy tal wala looy def ndax gan gi di bëgg a dem taalifal ko ñaari xasida yoo xam ne jagleel ko weeru koor kon bu koor jubee wala ñu ne ci biir e, daayira Muxaddamatul Xidma am taxawaay bu ràññiku boo xam ne ci ndigalul Sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa lañ koy defee loolu moo tax ñu fas yéene seqaat ak ñoom jataay bii di seq nag ak sëriñ Abdou bu Boussa Master waaye mu feggoo ak sëriñ Jili Boussa ak sëriñ Maxtaar Kan ci wàllu réalisation di sëriñ Jili Boussa feggoo ak sunu ay caméraman mbokk yi ngir ñu tàbbi ci waxtaan wi njëkkante ko ak ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan ñu xam ne lépp mu Muxaddamatul Xidma mi ngi jëm ci infaq fi sabilillah loolu moo tax sëriñ Abdou Lahad mu koy bàyyi mu nuyoo ak bokki taalibe yi ci biir nuyoo bi mu leeralaat ñu ndax lii bëroon nañ ko fu ñu jëlewaat ndigal ngir wed weddiwaat loolu ñu bëroon ak biñ jotee ci ndigal yi nan lañ ci fas yéene sooboo kon sëriñ Abdou Lahad bismillah auzu billahi mina sheytaani bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla sunu boroom may ku wér ak kàttan ba li mu yéene liggéey sëriñ tubaa mu def ko te ànd kook ñun di siyaare mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu murit kilifa kilifay diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak yi nekk ci àdduna bi yëpp di leen nuyu ci turu sëriñ Afiya bu si imaam mi nga xam ne moo jiite daayira mu xadamatul xidma ak ci turu mbooleem kilifa yi ngànk daayira bi mbooleem commission yu wuute ak mbooleem membre yu bokk ci daayira mu xadamatul ñu ngi lay nuyu di lay dalal yaa mbooleem ñi nga àndal liggéey bi fii ci jumaay Tuubaa ñu toog fii ñu fas yéene waxtaan weeru ko hmm. mu mel ni ndigal li ñëwaat na ci yéen fan la bàyyi ko ak nan nañ la nan la demee waaw ndigal li ñëwaat na ci nun bàyyi ko ci fa mu baaxoo bàyyi ko jëm si ci nun ku ne xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ba mu sosoo ci weeru mars 1994 ak léegi sosoo woon ci ndigal Sëriñ Saalix Mbàkke yàlla na ko yàlla dool dolli ngërëm ak yërmande amiin ci doo taas ñu ci barkeem ndigal loolee ba fii mu toll nii daayira bi ci ndigal yooyu lay doxee fi nekk Seexul Xadiim lépp lu mu mën di doon ñuy jëf ndigal la ngay jëf la ñuy def jëfloo ci waxtu nekk ñu moytu def loo ñuy tere mm-hmm. noonee ndog yi tàmbale woon ci Seex Saale ci atum cinq di koy doxee ba ci Cheikh Mohamad ñu fi jaar ñëpp ba ci Cheikh Mohamadul Muntaxa di koor gi desee ay fan dem nañ ci moom laaj ku ndigal ci toll ci wàccaayu koor gi ngir ñu ñëw diglu la ba xam ndigal loo ñu wax ngir ñu bu ñu demee ñu defe ndigal loole mu yëkkati kàddoom daal di sant ci li weesu lépp daal di gërëm daal di ñaan daal di wax ne na ngeen ko def na ngeen ko daan defe ci waxtaan yi ci ndogal yi ak ci yëpp waaye ngeen dolli ci sàmmonteeg fi jamono toll lu ngeen ci man kon digal li ñu ngi ko jële ci Sëriñ Tuubaa Cheikh mun Mountakha mi nga xam ne képp kuy jële ndigal ci ndigal lu bàyyi ko Sëriñ tubaa ci moom lay jógee mm-hmm. ñu fas yéene nag na mu ñu ko digale ñu fas yéene ko defee noonu waaw li mu koy defee nañ koy defee. jërëjëf sëñ Abdou Lahad kon day mel ne leer na ci ne. Euh, koor gi jàll ku ne xam na ne sëriñ bi dafa joxewoon woon digal ci ne yi ñu daan def muy activité yu jëm ci wàllu jumaa ji di fi dajale mbooloo mi nañ ko moytandiku ndax fi jamono toll kon day mel ne moo joxewaat tey ndigal ci ne ñi ñu daan dogal ci jumaa ji lu luñ ci gën a mën a def nañ ko def conférence yi ñuy def ci jumaa ji nañ ko daan defe nañ ko def loolu xam naa ci lay ñëwee ak sëriñ Abdul Xaadir Buso euh, ginnaaw boo nuyoo ak bokki taalibe ba nappi ndigal li bi mu ñëwee li ci jiitu nga xam ne moo ci ëpp solo ci doomu aadama yi mooy dundal gi ngeen deen dundal ruuxuk doomu aadama yi ci ñuy xam seeni koor seeni farata ni ko sëriñ bi daan fonke nga xam ne aggoon nañ ci bu di heures jotee ñëpp bàyyi xel jumaa ji yooyu fan ngeen ci toll ak naka ngeen ko waajal ren. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yëpp fu ñu waaye man di teewloo di jiital nuyoo bi ak ziar bi. suñu kilifa Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu boroom gën koo dëgëral gën koo kàttanal di ci toftal kilifa yi fi teew yëpp buñ ci tuddee sëriñ Abdou Lahad Maasa ak sëriñ Muxtaar ak yow sëriñ Fàllu mi ak sëriñ Jiili mi féete ci technique bi yaakaar naa dana doy sëkk sëriñ Fàllu comme ni nga ko waxee rek koor gi moom daanaka ñeent yi rek moo ko séq muy dundal gi ci wàllug ruux te mooy li aju ci waxtaan yi dundal gi ci wàllu berne te loolu mooy li aju ci ndogu yi fexe it ba kenn ku ci nekk gis ci sa bopp noo ci mën a jàppe jàppe ci te loolu moo aju ci wàllu social li ñuy def it fexe ba nit ñi di ko xam di ko jot heure bañ ko war a jot te loolu mooy lu aju ci wàllu communication yaakaar naa loolu rek moo séq koor ci niñ koy doxale fii ci daayira Muxaddamatul Xidma bu weesoo euh, lu jëm ci wàllu finance ak coordination ni nga ko waxee daayira Muxaddamatul Xidma dafa wéer lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu xam-xam ak dundal koor gi ci wàllu berne ju aju ci ruux da ko dénk commission bi ñu wax euh, commission culturelle lañ na thaqaafiya commission bi nag ñi mu baaxoo doxe mooy saa yu koor gi jubee dafay dajale ay memburam waxtaan ak ñoom sottante xalaat ñu xool nu ñuy waajale euh, weer wi bu ca membre yooyu jógee danañ gisewaat ak kilifa yi wax leen fi liggéey bi toll bu ko defee coordonné ak yenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne baaxoo nañ di ànd ak ñoom liggéey bi euh, wax leen ni ñu ko xalaate ak ni ñu ko bëgg tërale bu ko defee ñoom it ñu jàpp lañu ci seeni xalaat bu loolu amee bañ dajale xalaat yi danañu wootewaat benn ndaje moo xam ne boo xam ne commission culturelle bi ñoo ciy daje ak boroom xam-xam yooyu may junj ak it képp koo xam ne kilifa la ci daayira bi jiite commission wala mu cay ab coordinateur buñ ca dajee xool euh, thèmes yi nga xam ne jot nañ ko proposé ñu segg ko xool la ca gën a dëppook jamono ak la ca nit ñi gën a soxla ak la nga xam ne it man mënees na koo waxtaanee ci jumaa ji ndax yu yëpp dañu koy bàyyi xel dañuy bàyyi xel barab bi bàyyi xel jamono ji bàyyi xel liñ soxla waaye bàyyi xel it ki koy wax ak fi koy waxee yooyu yëpp bu amee bu ko defee ñu daal di tànn niñ koy tànn niñ koy tànn tànne it ñetti anam rek la mooy dafay am yoo xam ne dañ koy jagleel ay duruus ay bind lañ koy tuddee yoo xam ne dañ ciy nafar liñ jotoon a jàng ci wàllu fiq wala ci wàllu tasawuf wala ci tawxid wala bind bu mën a doon loolu danañ ci tànn lu mat fukk ak ñeent da baneen anam gi mooy loo xam ne dañ koy tuddee ay mawduwaat ay thème yooyu dañuy xool rek yi nga xam ne dëppoon na ak jamono te nit ñi soxla ko ñu xool nuñ ko mën a waxtaanee nuñ ko mën nuñ ci mën a sottantee xalaat loolu danañ ci tànn lu tolloog fukk ak ñaar bu loolu jàllee nag bi ci mujj mooy lu ñuy tudde ay fataawa muy ay gàgganteku di ay tontu laaj yoo xam ne dañuy diglu mbooloo mi nga xam ne ñoom ñooy diglu waxtaan yi di topp conférence yi lépp loo xam ne soxla nañ koo xam ci waa seen wàllu diine ñu xamal leen ko bu ko defee waxtaan wi noonu la daan tëdde ba ci sax at mii jàll nga xam ne xëy na activités yi bariwutoon waaye teewutoon fexe woon nañ ba waxtaan yi yépp am jàlloon ci anam goo xam ne it wax dëgg yàlla kenn ku ci ne bàyyi nga ci xel kenn ku ci ne it rafetlu nga ko euh, thème yi niñ ko tànne comme ni ma ko waxee am na ay duruus ay bind am na ay thème am na yit ay fatwa xam naa ci kanam tuuti incha allah danañ leen euh, jàngal tem yi nga xam ne tànn nañ ko ren ak ñi nga xam ne jox nañ leen ko féetali leen ko ñu war cee gëstu war cee sottante ak ñoon xalaat comme ni nga ko xamee waxtaan wi comme ni nga ko junñee léegi Euh, saa yu ne day commencé 17h30 5 ci ngoon bu tegalee fanweeri minute di jeex bu dog desee fukki minute ak juróom léeg mu ëpp ko tuuti nag léeg ñu xool bu dog jotee euh, bu dog desee 20 minutes wala yu demee noonu ci kaw ni ñi ñuy coordonné ak euh, commission organisation ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu googu. macha allah jërëjëf sëñ Abdou Khadir day mel ne. Eh, bu ma dellusiwaatee ci ni ngay waxee surtout nag di pees di di di di xool thème bi ngeen war a wax ak ki ko war a wax ak fi mu ko war a waxee ak jamono ji mu koy wax day mel ne loolu déggoon naa sëñ Mbay Jaxate waxoon na ne del peese say wax tey peese ñi ngay waxal tey peese fi ngay waxee ak ñi koy xala déggati kon day mel ne lépp loo xam ne laaj na ko rek da ngeen ko ci def tax jumaa ji am na ci loo xam ne sañees na ko wax ci penc mais waaye sañees ko waxee ci jumaa ji am na itam ñu bokk ci daayira Muxaddamatul Xidma am na lu ñu sañ a wax ak loo xamante ni bii sañuñu ko wax eh, ak ñi nga xam ne ñoom lañ koy dëgtal kon macha allah yaakaar naa ne buñ ci dellusiwaatee dana gën a leer ci ñi nga xam ne waxtaan yi moo leen intéressé ca dañu ko topp kon sëñ Maxtaar Kan eh, yow yaa yor lépp lu jëm ci wàllu communication waaye bokk ci nag ci ak organisation rawatina lu jëm ci wàllu ndogu yi waaye bala may ñëw ak yow ci wàllu ndogu yi ci wàllu communication naka ngeen waajale fii ñu tollu tembe loolu nga xam ne sëñ Jile indi na ko tam jëm ci lépp lu jëm ci wàllu conférence yi ba nit ñi man koo am waxtu wañ ko nañ ko daan amee bismillahi rahmaani rahim barakati xaadim rasul ñu ngi nuyu ni ko mbokki waxee mbooleem kuy déglu émission bi di siyaare bu baax kilifa dëkk bi di ñaan yàlla mu dëgëral ko may ko kàttan ba lim naa la liggéeyal maam ju baax ji yàlla jàpp jàppandal ko ko ñu ànd moom yàlla mën yàlla ko def sëñ Fallou ñu ngi siyaare mbooleem ñun bokkal émission bi su Abdou Busso moom Asta sëñ Jili Busso ak yow mi nga xamee tamit kenn nga ci daayira bi di kenn ci mbooloo mi nga xam ne nii mu ñu laa ñàkk say taxawaay rafet ci lépp rek ci lépp rek du du ko benn commission nga bàyyi ñëpp nga jàppale ñu lay sant bu baax di la gërëm ñaan yàlla dëgëral la may la kàttan ba li nga yéene ci yoonu mbir bi nga def ko ni nga ko bëggee day benn ndékk day am benn pakk wala benn gàllankoor li ngeen nag ci wàllu liggéey bi ñu seq ak commission communication bi sëñ bi joxee ndigal daayira bi danoo toogaat ak commission yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ñu ne na ko dem def say proposition yaag sa mbooloo li nga nasa liggéeyee su nga ni ko gaaral ko comi ci biir exécutif bi ñu càmbar ko jubbanti ko wéyal ko nga nas sa budget fukki fan yu ne nga rendre compte secrétariat bi li nga naaloon liñ ci def li ci des ñu ne commission bi ñun suñu naal nga xaaj ñetti xaaj muy bu njëkk mooy avant koor di ñëw li war a def bu koor ñëwee ci biir koor gi li war a def bu koor gi jeexee li war a def li njëkk mooy dañu joxoon digal ci jëlu ci kilifa gu mag gi te mooy danoo bëroon kon weddi nañ nit ñi waroo yëg ne koor gi na naan jàll ci at yi lu la war a amee ci at mi ñu jëm nii mm-hmm. mun nañu bëggan tamit ñu jéem a siiwal ci këru tasukaay xabaar yi mel rajo yi ba ñëpp dégg waxtaan yi muy am en direct ci mboolem rajo yi bu jàppee ñu koy teg bu ñuy defee direct ñuy teg ginnaaw bu jeexee doole ñu ne ñu tamit na ngeen ba tamit def ab soññee bu yaatu ci mboolem télé yi ak ci site yi ngir nit ñi xam ne tamit ñi ñi tàmm ak dégg ci wàllu site wàllu télé tamit dégg loolu moo waral jotaay bi ci la bokk ndaxte dañ ko yëpp dañ ko jiital ci liggéey bi ngir man cee soñ wàll nit ñi da ngay mel ak rajo yi waxtaan ak ñoom ci liñ séq wax dëgg yàlla ñun tamit naka jekk nan jàllale conférence yi ñenn ñi di ko direct ñen di ko tegaat ñu ni saabun weesoo juróomi fan jël thème yooyu yëpp boole ci benn kale wër leen jox leen ko par kenn kenn ren nag suñu borom daf tawféex ci déglu sëñ bi ci grâce ak sëñ Fallou bi tamit euh, ba jii ñu ëpp ci rajo yi wax nañ ne dana ànd ak ñun conférence en direct ñu des tamit tamit gàllankooroo def ko en direct danañ ko jàllale tamit ci ànd feere ko ci dëgg du génn bis bi loolu tamit incha allah fas nañ ko yéene def waxtaan nañ ko tamit ak ñoom dëpp nañ ci ay kàddu jàpp nañ tamit ne xal nañ yoon bu gën a gaaw woo xam ne nii conférence yi saa bu jeexee ak technique yu bees yi dana man a ñëpp dana mën a benn yoon benn benn groupe WhatsApp boo xam ne ci mooy gën a yombal jotin conférence bi ndax jëfen trop chaque jour nga ñëw ak sa correspondant wala sa ku lay jël si waxtaan wi dana xaw a jafe waaye allah wut nañ pexe yoo xam ne nii suñu paree rek te loolu ñu ngi seen fàll seen fàll bu baax a baax suñu paree rek ñëpp danañ jot seen waxtaan ci son bu jaar yoon image yu jaar yoon yu am qualité. ñu nit loo xaw jóge ci benn benn benn benn benn jéego duñ beneen jéego danoo jóge ci jéegab site euh, internet jëm ci jéegab télévision danañ jéem tamit ba télé yi ñun yëpp tamit liggéey tamit ñu jéem ba ñoom tamit ñu jot image yi ci qualité bi gën loolu lañ fas yéene waaj nañ ci lépp ba tey wàccaay wàccaayu avant koor tamit ni ndegee ak ñu yor wàllu communication ci tere yi seen i jëwri yebal leen noonu léegi dina commerçant yi incha allah toog ak ñoom rendre leen compte ci li wees woon ndax ñun tamit dañoo bokk ñun tamit juddug li si la waxee rek juddug ndogu ci Tuubaa gi dafa am histoire dafa am ñu ko ñett ñu ko siq te ñaar ñett ñi ñaar ñi bëri ñu lu ñuy ñëw jumaa ji maanaam dëkk ju fi laal muy sëriñ si ak commercant yi ak dayre bi ñoo séq loolu suñu sa suñu saal mu joxoon propos mu joxoon mu joxoon liggéey benn noonu kon day jaar ñu tamit chaque chaque année bu jeex bu koor jeexee ñu wax ak ñoom li ñu ci wàllu xaalis mu leer fi mu dugg liñ ci financé benn par benn loolu mooy waajtaayu njëkk wi ak émission yi ñu def ni mu ñettee ci biir koor tamit ñu bëgg tamit mbooleem waxtaan wi du am benn dog-dog son bi dana ñëw ni war a ñëwee image ñëwee war a ñëwee ba ku mënti ñëw di direct saa ba jokkoo ci ci télé bi da nga am image bi gën ci image yi son bi gën ci son yi incha allah loolu am ko loolu am ma waaj loolu mooy ci biir koor gi hmm. incha allah tamit commission bi tamit képp lu xew lépp lu xew ci biir jumaa ji lu mu di doon te laal koor danañ ko jël archivé ko ngi ndaxte day bari ay gan yu fi ñëw yuy seet si tey bépp bépp commission bu yoru liggéey tamit danañ taatan la nga def ci commission yépp def ko benn centre document boo xam ne nii day nekk margia ci ëllëg bu ëllëgee mu soxlaa image bi noonu man koo def loolu mooy après koor gi tekki nag taxaw julli korte gi bu ko tey jeexee nag ñu ne koor léegi melef euh, koorum jee na nañ ko évaluer xool la ko jub xool la ko dëng bàyyi nit ñu wax seen xalaat ci mbir mi ñu bind ci ab delluwaay ngir bu ëllëgee la ca baax ñu gën koo dooleel la rëq ñu àndoo jubbanti ko noonu la communication bi. macha waaje kii loolu ci ne. ndegam nag ren jii gis nañ ni Sénégal gépp sit yeeg dafa xaw a bari te jumaa ji lii fiy jëlee dañ ko war a segg ni ko waxee léegi nii ndax ndegam conférence rek dam ko fa wax bari suñ suñ saaliwu fii sëñ Afe ñaŋ def na fi ab thème ci wàllu nika ak tawhid da ko baamulu da ko baamulu kon kilifa yi ñu ngi diglu baax lii xaw ci jumaa ji moo xam image la moo xam son la moo tax ñun tamit daan taxaw ci képp ku fi ñëw bëgg son walla image booy jël ñu laaj dafa yob benn entretien pare ba nga doy ñu walla ngay wax la nga wax convaincre ñu ñu jox la benn carte boo xamee nii dana la may nga jël du doy nag du tee nag ñu toppaat ci ginnaaw bi nag xool la nga jël noo ko wanee lu ci ayib ñu àndandoo corriger ko ndax fi nekk day lépp ñëpp lu nekk ku ne ci moo tax bëgg nu bàyyi kenn nga di ko salfaañe ci wàllu image ndax image day wax image day wax te moo tax ñuy aaye photo góor ak jigéen di fi aaye image yoo xam ne amul ndigal yooyu moo tax nag ci koor gi nag dañ koy gën a ndax koor gi nit ñi day ëpp jot ci ñëw jumaa ji ñëpp ñëw moo tax dañ jëm sàmm sàmm ko qualité sàmm sàmm image yi ba ñu fi ñëw wàccu ndigal yi jàpp naa ki tënk daal loolu mooy naali communication naal communication bi nag suñ suñ ji suñ li nga xam ne moom liggéeyu programme yi nii programme bi social am éducation clinique am ko ñoo moo suñu programme ñu danañ jëm ba ñëpp gis ko rek ñun daal ndab li moom lépp lu gaay taal ci cin li ñun da yekki ndab séddale ko ñëpp gis ko ci wàllu image ci son incha allah ci tënk. macha allah euh, sëñ Makhtar euh, communication dafa mel ne liñ ci bëggoon a laaj lépp sax far nga ko tontuwaale. Euh, ci biir question bu njëkk bi. xanaa dina entreprise bu tuuti rek mooy gis nañ ne organiser ngeen ci ndigalul sëriñ bi ak rajo yi nekk ci dëkk bi su ma jumut mbooleem rajo yi nekk ci dëkk bi convoqué ngeen leen daje ak ñoom def ñoom benn entretien. Mhm. ba créer leen benn groupe whatsapp boo xam ne. wax ngeen ne su conférence bi jeexee rek cinq minutes après kenn ku nekk danga ko mën a am ci sa kii. Mm-hmm. mais keneen koo xam ne dafa yor rajoom ci beneen région beneen département dégg loolu ci bëgg di euh, participer ci conférence jumaa ji di ko teg ban buntu lay mën a jaar ak wan yoon. waaw loolu sëñ ji lii liggéey na ci liggéey bu am solo ndax tey suba rek maa ngi koy wax na ko am na benn réunion rek Dakar boo xam ne ne daa bëgg di jël conférence yi en direct bi wala boog télé bi dana fenêtre boo xam ne ni ñi bëgg a jël lu mel ne lien yi ñi bëgg a jël yooyu dana lancé ci mbooleem internet bi fi lay jaare ba ku ko bëgg a jël mën koo jël ci image yi nga soxla woo macha allah loolu tax nañ incha allah loolu ñu liggéey nañ ci ba mu ngi koy testé jàpp na ne fii bitim réew ku bëgg a def en direct boo duggee da nga def en direct te doo am benn xusi xusi incha allah benn xusi xusi am wala benn dagg-dagg ci biir commune mais bu mel sax da doon liggéey dafa liggéey dafa liggéey ba courant sax bu coupé woon tey ji du gaaw du gaaw a agsi ci daggin wi misaal bu courant coupé woon tey jii mën naa dox cinq minutes ba dix minutes ñu soog a amaat coupiir te loolu mosut am loolu mosut bu courant coupé rek ak daan daan dagg loolu ñu ko jëm saafara bal bu courant coupé tamit imaam dana daan dem ay dix minutes ngir bañ a indi ñi seetaan. ak yokki ngir ku xaar lu yàgg mën ngaa dem ci beneen site. macha allah loolu du du la gën. jërëjëf euh, sëñ maxtar kan ci wàllu communication euh, sëñ Abdoulaye damay dellusiwaat dafa mel ne communication li mu wax lépp ak li nga xam ne mooy laaj na saxaafiya bi li wax wax mooy commission culturelle loolu lépp xaalis la laaj te lan mooy bit seet Moukhaddamatoul Khidma fan la ñuy jëlee xaalis boobu. waaw ah, bi. ñu ngi leen nuyu bu baax di rafetlu kàddu yi jiitu jërëjëf jóge ci Cheikh Abdou Khader ak Sidil Muxtaar noonu nga ko waxee daayir Muxaddamatu Xidma waxtu wu nekk la ñu ñamoon bañ ñu tàmbalee koor gi ba tey saa bu jubee nañu daan def buñ xasee am ndigal day mel ni muy bit si bit saa bu ñu demee ci ki fi nekkal Sëriñ tubaab ba mu jox ñu ndigal fa la ñuy tàmbalee ànd ko mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi ci moom Cheikh du Mountakha mu jiite ci jamono ji ñu dal noonu lañ koy defee ñoom kilifa yi kenn ku ci nekk la nga ca mën a jàppe yaa ngi ko ci jàpp ci liggéey kon sëñ Mountakha dana participer ci ndogu yi dafay participer at yi yëpp mooy njëkk participer sax mooy njëkk participer boo xoolee rapport bi turam mooy nekk ci kaw mm-hmm. noonu mu koy def ci waxtu nekk dana wax ne dama ko doon def laa koy def njëkk buy toog jataayam bi sax danaa participer ci ndogu yi xel waxtaan yi bu la gisee dem wax diglu waxtaan yi bu baax a baax noonu la koy defee bu ko defee kilifa yi nga xam ne ñoom lañ nekkal ci dëkk bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk danga nga ci participer xam naa bu ma ci tuddee sàmm taxaw tudd ci sëñ Moustapha am sëñ Massamba nga xam ne jàmbaar lu ràññu mel na ne moom ñi ñu maas ñëpp di kii noonu la ñuy defee kenn ku di dugal sa loxo ngir liggéey bi damay bañ a lim waaye su ma tuddee Cheikh Mamadou Mountakha mhm. tudd ko teg ci loxol ki loxo ki yor baatu yoon wi di waxtu mu tegal ñu ko ci mboolem kilifa yi ci joxe ñu Cheikh Mamadou Bassirou Monsieur Bakhadir ñooñu noonu lañ ci participé waaye yëmut foofu da ñi nga xam ne ñooy waa daayira bi seen bopp kenn ko ci nekk da nga joxe sa participation boo joxee sa participation ñu bind ko waa opérateur économie nekk ci dëkk bi ci bit ci dëkk bi ñoom ñëpp dañuy kenn ku ci nekk la sa man-man tolloo sa pas-pas tolloo ci nga jëfe loolu ñu dajal loolu muy xaalis la muy matériel bi ñuy soxla wala bu ñu noppee loolu la ñuy dajalee wax yow fi ne boo fa indi woon kilo suukar sax dañuy jël téye kilo suukar bi xayma ko daan ne xaalis nangam su boobaa taxawaayu xaalis taxawaayu kilo suukar la noonu lañ ko àndee moo dem opérateur économie yi nekk bi ak biti dëkk bi noonu lañ koy àndee tamit ak benn benn nit ñi nga xam ne dañoo bëgg lu baax fu ñu dégg lu baax foofu seenu ñax dugal ko fa mm-hmm. te bokkuñ ci benn kuréel noonu la lañ ci àndee ñoom ndax barab bi ñu nekk day barab boo xam ne ñun sàmm rek moo ñu ci war te ñu doon lépp ñëpp ba tax na waxtu nekk dañuy ubbi buntu yi tax kenn ku ci nekk foo mën di nekk ci àdduna da nga boo ci bëggee barkeelu nga barkeelu ci ne Sëñ Muxtaar waxee dañuy ubbi bunt ci képp koo xam ne am nga loo bëgg a jàllale nga mën koo jël noonu lañ koy defe tamit ci ku bëgg a barkeelu daayira noonu ñu ko àndee ak opérateur yi noonu lañ cee àndee tamit ak mboolem ñi nekk ci réew mi waaye rawatina ñi nekk bitim réew ñu nekk bitim réew ñu nekk Afrique ñu nekk Europe ñu nekk Amérique ñu nekk Asie ñëpp fenn bu ci nekk ci barab yooyu am na fa benn benn réew yoo xam ne ay jàmbaar lañ yoo xam ne ñu ngi feeñal seen yéen ci liggéey bi ak bu mat sëkk ndax ni ma la ko waxee rek sore ji ci solo fexe ba sab xol jege sëriñ bi mooy li ci am solo. macha te loolu am na solo lool ñu dafa def kon ñooñu ñëpp dañ ci ànd noog ñoom ñooñu benn benn bu nit indi dara ñu defal la ko ci ku yàlla dimbale taw feex nga yor sa dara lu mu néew néew ba ñu ko joxee ñu def xayma lam tollool ci njëg defal la ko ci lu mu mën di doon moo tax du daayira boo xam ne dafay nekkal ñenn daayira ñu ñëpp bokk la kenn ku ci nekk la ciy sawal la boo xaaree bu ñu xamee ne yaa ngi fi dañu ñëw jël si nga jël si ko soo ñëwee jël si ko ñu jox la ko waaye boo ñëwut tim bu ñu leeree bu ñu la ko yóbbulee nga jël ko ñu andil la ko ndax day njariñul kese loo xam ne njariñ yéene nañ ko ñëpp tax na duñ ci sànqal nu ci dara mm-hmm. duñ ci gëmmantu ci dara duñ ko ci ndax noo ñooñu ñu wax ñu ko àndal noonu lañ ko daa àndee ñoom bàyyiwuñ ci kenn muy kilifa yi diine yi ci kilifa yi aada yi am na ñoo xam ne mbokki taalibe lañ yoo xam ne seeni pas-pas ak seeni bëgg lu baax tax na dañuy jàpp ci liggéey ñu doon gi ñu doon taalibe Sëriñ gi ñu doon jullit ñu ngi sant ñoom ñépp sant bu ñu dara dara Sëriñ Tuubaa Seex Muhammadul taxaw ngir taxawu gu mu taxaw ci diine ji waaye taxaw gu mu taxaw ci dayram waaye di sant mboolem opérateur économie waaye di sant bu baax mbooleem ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram wàllu sant nekk ci gox bii ak benn benn yi nga xam ne sax dañuy yëngu ci day wàllu sant ci di ko jàpp dayru ma xaram la ci nekk ci yeneen bañ lim waaye kenn ku ci nekk la nga jëf xam nañ ko mbooleem pharmacien yi nekk ci barab bi nga xam ne bu yàlla dogalee nga xam ne danañ at mu jot danañ def benn consultation danañ ko def ci màggal gi tamit ci ñooñ ñëpp ñoom pharmacien yi kenn ku ci nekk danga nga ci feeñal sa yéene bu mat sëkk ngir bokk gi nga bokk ci liggéey bi mhm. mbooleem docteur yooyu ak mbooleem ñooñu di waa euh, yi mhm. ñu ngi leen di sant bu baax waaye di sant ñi nga xam ne waxtu nekk lépp luy daayira Moukhaddamatoul Khidma yëngatu jël nañ seeni bagage dem xam ne ñoo ngi ñoom a yem muy ñi aju ci presse bi Sëñ Moxtaar wax na ko waaye sant la lu doy ndax dalañ leen sant bu baax gërëm leen bu baax lii yokk sant gi dëgg sax mooy waa presse bi nekk ci dëkk bi li ñu di sant mooy dañoo dégg li tax li tax a jóg daayira mu xadam taxin ba tax na daanaka coowoo am dëkk ci dëkk bi amul wax nañ ko xam nañ ni fii lu ñuy tere nekku fi lu ñuy def orientation yi moo ci nekk kon takk yoo ngi takk doo xam ne ñoom yéen ñoo yam ci liggéey bi ñu ngi teg nuyoo boobu ci sa loxo nga jox tegal ñu ko ci mbooleem ñi yëngu ci wàllu presse ak presse bu mu mën a doon ci presse yi. moo xam bi bind la moo xam bi ñuy gis la moo xam bi ñuy wax la mën di doon rek. macha allah ngi leen di jotal cant yooyu ndax def nii ci wàllu saxaaf ci wàllu social ak lu mën di doon ñoom ñooñu buñ ko wane wutoon du egg fa mën a egg ba nit ñi topp di ko topp ndax dañ koy topp ba bitim loolu lépp ñooñu la. nuyoo boobu presse bi tamit danañ ko teg ci loxol Serigne Abdou Khadir Bousso mi jiite GMT TV ngir mu jàttal jottali ko mboolem ki nga xam ne mi ngi jokkoo moom ci wàllu gi yore foofu nekk ci bitim kon daal cant gi ak ngir ñu ngi koy def ci mboolem koo xam ne yaa ngi ànd di jàppale daayira Moukhaddamatoul ci liggéey di fas yéene nag di tàllal loxo nañu ko daan defee rek ñëpp ñoo xam daanañu ànd ñoom liggéey bi daayira yi ak mbooloo yi ak kilifa yi si ne ñoo ànd ak ñun liggéey boobee nañu ko daan defe ci koor gi ñëw ànd ko ñun waajal nañ ko fas yéene ñoo def loole nañu ko daan defe lenn lu ci nekk rek danañ ko def waaye digalul sëriñ bi defin ba luñ cay danañ ko soppi waaye am macha allah gannaaw def leen ko ni ngeen ko daan defe la loolu ndigal la sàmmonte tamit ndigal la daayira bi nag bi ndigal la jógee def nañ seenum ndaje kenn ku nekk ci commission yi la ngay def ba tax la sëñ bi dig la am def nañ ko ba ñu nekk ña ci war a def ñu ngay def macha allah sëñ xam naa ci wet boobu ma soññ loxo ñëpp daal ngir xam ne benn benn dërëm yooyu ñu ndax lu yoonu liggéey benn benn dërëm yooyu moo tax la yoonu liggéey ko tax na tamit daayira moo xam ne moo tax dërëm dërëmu kenn ndax lant noonu rek lañu waaye sëriñ bi ñu ngi ñaan nag képp koo xam ne def nga ci saw ñaq wala nga am ci yéenee def yàlla sunu borom kàttanal la wéral la xéwal la baloo ciy def lu nekk nga gën ko cee mën a def di jërëjëf Cheikh euh, Abdou Lahad leer na lool ci ne bàyyi defal yàlla yi te bu ma ko tuddee Serigne Touba Cheikh lu Muntaxa laa ciy jiital mi nga xam ne mën naa ko tudde nawet bu nangu walla wax set wax set wu seet bi xàmmee wut xur ak jaan Eh, day def rek te yàlla tax jëmmi doomu aadama ci boppam moo ko ñor mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha eh, yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a doole ak wéram lu ci nekk ma nga cay dugal loxoom di di fa làmb ngërëmul Sëriñ Tuubaa eh, kon day mel ne ñeneen ñi nga xam ne it ñi ngi yor seen alal te bëgg koo joxe ci yoonu yàlla te rawatina ci weeru koor yaakaar naa ne bu ñu ko jaaralee ci jumaa yi Tuubaa dana jàpp ci ñoom ci liggéey bi nga xam ne Muxaddamatul Xidma mi ngi koy liggéey kon sëñ ji li damay ñëwaat ak yow ndax day mel ne li ñuy wax lépp bu jàppandee berndek ruux gi mooy li jëkk te ko woor ba takkusaan bokk na ci li ngay dàqe jant bi mooy di déglu waxtaan wu lay delloo ci yàlla di la gën a xamal sa bopp waaye di la gën a leeralal sa mbirum àdduna waaye di la gën a leeral sa mbirum alaxira mel na nag kon loolu dafa war a tege ndax koor gi moom ñaa alaakulli mu mat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala mu mat fanweer waaye ñaar fukki juróom-ñeent moom mun leen koo ñàkk yoo xam ne faw ngeen ko am ko ci ay tem nan ngeen waajale tem yi ak ñan ñooy def ñan ñooy traité tem yooyu ok jërëjëf sëriñ Fallou jërëjëf sëriñ Abdou Lahad jërëjëf sëriñ Muxtaar comme ni ko waxee rek berne yi moom ñaari xeet la berne ji jëm ci jëmm rek ak ji jëm ci ruux te jëm ci ruu da cee am solo lool ndax mooy jëmmal mukarraman bi xirat taati was sadadi di sëñ ba doon teeroo weer wi ni ma ko waxe woon léegi ay daje yu wuute te bari lañ def ak ay consultat yu wuute ak ay discussion yu yàgg tamit te dure ngir xool thème yi niñ koy tànnee ak nuñ koy segge ak ñiñ koy jox ak orientation yiñ lañ ci eh, yiñ lañ ci yóbbal pour ñu bàyyi ko xel ndax barab bi ak jamono ji waxoon naa léegi it ne euh, ci ñetti anam lañ koy tànnee da ci am yoo xam ne dañ ko jagleel ay bind dañ ci nafaraat am ci yoo xam ne dañ koo jagleel ay thème dañ ciy xool li xew ci wàllu actualité ak nuñ ci mën a waxtaanee ci biir jumaa ji am ci yoo xam ne dañ koy jagleel loolu fukk ak ñaar la bu dee duruus yi muy bind yi fukk ak ñeent la mu des ñeent ñu jagleel ko fataawaay ni ñuy faral di doxee nag mooy euh, koor gu jot dañ koy tànnal fanweeri fanweeri tem fanweeri euh, tomb yoo xam ne war nañ cee waxtaan fanweer yi bu fekkente ne koor gi mat na fanweeri fan muy muy noonu bu fekkee dafa nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent rek yam ci ba ko loon dañ koy yóbbu ba ca waajtaayu màggal ga ñu waxtaane ko fa nga xam ne dañ koy ajandi daal bu dee kooru ren gi nag incha allah liñ yii lañ ci bëgg a waxtaan ñii it ñoo ko war a waxtaanee boo xoolee yi may waaja wax da ci seetlu ñett yooyu muy bind yi ak thème yi ak tontu laaj yi bi ci njëkk dañ koy ubbee ci koor àtt yi mu am ak i tegginam loolu sëriñ Maam Mor Xam sa diine moo koy wax waxtaane te yàgg na ko waxtaane loolu ñaareel bi dañuy jukki ab buntu ca Masaalikul naan jàngat ko muy bunt ba aju woon ca wàll ak la ca aju faslun fi tilaawati wa ma yataallaqu biha ki koy def mooy sëriñ Afiya Ñang muy ku ñëpp xam ñetteel bi tem la ñaar yi ma wax ay bind la bi tem la ñu fas yéene cee waxtaane ndaw ñi ak rôle bi ñu am ci defar société bi loolu ki koy waxtaane mooy sëriñ Fallou Boussa Xasan moom kenn ku ci ne xam na tem bi jekk na ci moom comme noonu lañ koy tànnee rek ñeenteel bi fas yéene ñoo waxtaane mar muy wax lu dul dëgg ak jeexit ji indi ci askan wi ci société bi mm-hmm. loolu ki koy waxtaane mooy Serigne Habibullahi Jatara juróomeel bi danañ waxtaane solos xam-xam ci njàngaleem sëriñ bi loolu ki koy waxtaane mooy sëriñ Abou Mbacké Bachiru Mor euh, thème bi ci tege danañ waxtaane di yan àtte la am ak yan teggin la am ndax gis nañ ne am na ay façon yu baree bari yoo xam ne léegi am na ci yooyu yëpp bëgg nañ koo jukki càmbar ko xool ko wax ca lan mooy ci kàddu diine ki ko war a def mooy Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen ren waaw ren di waaw ak façon yim am ak àtte ca aju ak i tegginam ba ca tegee euh, tontu laaj lay doon fatawa ki koy def mooy Serigne Mbacke Abdourahmane tem ba ca tegewaat mooy wàllu carte carte lan moo bi ñu ko waxee mooy lan yan lor la am ak yan fu muy feeñ ci yan melokaan la am ñaata façon carte moo am rawatina nag yi xew léegi gis nañ léegi xew na bari na moom it moo tax ñu jàpp ne war nañ ko waxtaane ki koy waxtaane mooy Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud tem ba ca tege mooy eh, réere li nga xam ne moom nga war a xam ci sa farata muy lu aju ci li nga war a jug rek di ko def toujours nga xam ne mënut a ñàkk ci yow loolu boo ko réeree yan lor la la mën a andil ak réere ak farte jëmm yi mooy lan loolu ka ko war def mooy Serigne Mountakha Diatara danañ waxtaane tem ba ca topp wàllu maandu maandu mooy justice ak euh, nim mën a indee jàmm cim réew loolu it yaakaar naa ñu ko waxee ñëpp danañ xam ne tem la boo xam ne ñëw ne ci barabam Euh, ba ca tegewaat danañ waxtaan danañ waxtaane benn askan wi nuñ ko war a sàmme ak euh, nu mën a ak dund bu teg loolu ki koy waxtaane mooy Serigne Xaban Mbakke mu Cheikh Mamadou Mourtada ba ca tegewaat danañ jukki ay teggin yu wuute ci biir mbindum sëriñ bi rawatina ci ay ndénkaaneem rawatina ci biir naxju xadaal xaaj ka ko war a waxtaane mooy sëriñ Mamour Mbacke Hamdi ba ca tegewaat danañ waxtaane projet yi lislaam am nan la ñuy def nan la ñuy mën a def ba di ko financer yan yoon lañ ci mën a jaare loolu ko ko war a waxtaane mooy sëriñ Sam Bousso Abdourahman ñu tegaat ca fatwa sëriñ Cheikh Mbacke am bu ludut moo ko war a def euh, bu ñu noppee danañ ca tegaat beneen bind boo xam ne dafay jëm ci wàllu dépense ci fiq buñ ko waxee mooy lan ak yan àtte la am sëriñ Abdul Ahad bu Saafiya Xaddi moo koy def ba ca tegewaat danañ waxtaane ñi nga xam ne dañoo jékki-jékki seeni mbokk xamatuñ ci ñoom dara ñu ñu tuddee almafquud ak nan lañ war a doxaleek ñoom ci ni ko lislaam gise te loolu gis nañ ne léegi bari na lool ki ko war def mooy sëriñ Murtada Buso mu sëriñ Buso Ilimaan danañ waxtaane it euh, sang yi nga xam ne léegi xew na nga xam ne daanaka léegi koo gis da koy sol euh, bu ñu jàng ci fiq ne booy jàpp ba àgg ci say tànk mën nga ko massa kañ nga ko sañ a massa nag ak ku am ay dagg-dagg wala yu mel noonu ba taf ci taf boobu noo mën a def ak moom ci booy jàpp wala booy booy sangu loolu ki ko war a waxtaane mooy Serigne Mbacke Abdourahmane danañ waxtaane Touba tamit ren Touba ak orma ji ak ku fi dëkk noo fi war a dëkkee ak jafe-jafe yi fi am ak nuñ koy saafara loolu ki koy def mooy e, sëriñ Fallou Bousso moom sëriñ Thierno danañ waxtaane tamit wàllu société bokk ko ànd liggéey bokk daan sa doole yan façon la am ak yan àtte la am loolu ki koy waxtaane mooy Abdoul Khadir Bousso moom Alaaji Cheikh Bousso danañ waxtaane buñ buñ ca jógee incha allah fatwa nekkaat Serigne Cheikh Bousso mu Serigne Hassan ca Gédé moo koy def. Euh, buñ ca jógee danañ waxtaane waat njuumte yi nga xam ne day faral di am ci sëy ci sëy buntub sëy yëpp njuumte yi nga xam ne nit ñi danañ ko ci faral di def loolu ki koy waxtaane mooy Serigne Mbacke Abdourahmane danañ waxtaane ñaari accord yoo xam ne dafa xew lool te ñu baree bari réere ko ba noppi di ko jëf muy li ñuy tuddee salam mooy léeg baykat yi danañ ko def ak ñu baykat yi euh, war a liggéey euh, amagoo capital nit lebal la capital nga dem liggéey ca boo noppee jaay ko jaay ko ca euh, la nga liggéey nga xam day mel dalay fay avant loolu yan àtte moo ci am ak liggéeylu li ñuy wax istisna nga xam ne da ngay dem ci ab atelier moom mooy dem wuti matériel liggéeyal la bu noppee nga fay ko wala léeg nga fay ko jiital nga xam ne ñu baree bari fii loolu la ñuy loolu la ñuy liggéey loolu yan àtte moo ci am ak yan masala moo ci am danañ ko waxtaanee ki koy def mooy docteur Abdoulaye saane danañ waxtaane xidma it liggéeyal sëriñ bi ak ci yan bunt lañ ko mën a jaare sëriñ Abou Chouaïb bu kebe moo koy def danañ waxtaane li ñu tuddee ci fiq daan doole di xëy di ñaq di liggéeyal nit mu lay fay yan façon la am ak yan àtte la am ku ñu wax Serigne Issa Gueye ma nekk Masaalikul Jinaan moo koy waxtaane incha allah ren it danañ waxtaane daayira yi daayira yi murid yi euh, lan mooy liggéeyam ak yan jafe-jafe moo ci am loolu ki koy waxtaane mooy docteur Khadim Silla danañ waxtaane it wàllu média bi ak ak média bi bu mu mën a doon rek moo xam bi ñuy gis moo xam bi ñuy dégg moo xam bi ñuy dégg di ko gis média dëgg dëgg dëgg boo xam ne aw na yoon mu mu mel ak ci yan tënku ci yan tënk-tënk la war la war tënku ci lislaam loolu ki koy def mooy sëriñ Fallou Bousso Axsan dañu jukkiwaat beneen buntu ca masaalikul jinaan waxtaane ko jàngat ko muy bunt ba aju ci lu ñuy dundale waxtu loolu ki koy def mooy sëriñ Ahmadou Mbacke Daaru Muxti buñ noppee ñu defaat beneen fatwa boo xam ne sëriñ Seexna Mbacke Abdoul Wadoud moo koy def thème bi ci mujj mooy lu aju ci wàllu woru woru wala gis sa bopp mooy lan ak yan lor la a am kon daal ci gàttal lii mooy euh, tomb yi nga xam ne fa yéene nañ ko waxtaane ren comme ni ma ko waxee ñetti pàcc yooyu ci lay seetlikoo ngeen gis ne kon niñ koy tànne tànn gi am nag sonn waaye it ñi ngi koy jox xool nañ leen bu baax waaye duñ duñ ci yem foofu kenn ku ci ne bala ngaa def sa waxtaan danañ la yónnee benn lettre boo xam ne ay orientation lay nekk ay tawjihat wax la euh, yenn teggin yi nga xam ne ak yenn waxiin yi ak comportement bi nga xam ne bëgg nañ ko ko waxee ci jumaa ji nga xam ne moom moo dëppoog suñuy suñuy principe ñi nga xam ne ñooy jàppale waxtaankat yi kat yi tamit ndax xam nañ ne ñëpp mënuñoo waxtaan ndax fanweeri tomb rek la suñu yeneen naataango yi di borom xam-xam yi nga xam ne xëy na amuñ ay thème ñoom dañ leen faral di invité benn ñu ñëw teewalu waxtaan wi wala ñu ñëw modéral ki nga xam ne mooy waxtaan ñooñu it danañ leen bind ñi nga xam ne dañu modérer danañ leen bindal ab leetar boo xam ne dañ leen ci jox ay orientation wax leen ni ñu bëggee modération bi di di di demee noonu duñ ci yam waaye ñi bokk ci commission culturelle bi ak ci ñi bokk ci daayira bi yëpp am na ci ñoo xam ne dañ leen di sas ñu diglu waxtaan yi di ko topp di ko controle di ci bind ay ay not bu ko defee bu ñu noppee ñu jox ñu ko ñu xool la ca jub ñu xool nañ koy jëmale kanam la nga xam ne euh, am na ci ay rëq-rëq ñu xool nañ koy jooyantee ëllëg ki jiitu ci ñi nga xam ne dañuy toog di diglu waxtaan yi nga xam ne mooy moom mooy euh, teeru waxtaankat yi buñ noppee ci moom la ñuy jaar mu dalal leen ba ni ñuy yeewi ko buñ noppee it mu jox ñu ci ay xalaat mooy njiitul daayira bi te mooy Serigne Afia Bousso waxtaankat bu ñëw rek da ko fekk ci jumaa ji bu fekkente ne ngànt amut da ku fekk moo lay teeru dana toog diglu ko ba mu jeex boo noppee dana la dalal ba ni nga yeewi ko moom it toujours dañ koy dañuy dellu ci moom di ko laaj moom gisee waxtaan yi ak yan jàngat la ci am ak yu mu ñu ciy proposé. Euh, ñi nga xam ne dañoo bokk ci commission bi te nekk ci yeneen réew na ñoom dañoo nekk ci yeneen réew di jàngi di fa jàng wala ñu fay liggéey ñooñu it dañ leen danañ leen di. wax di leen sant ñuy diglu waxtaan yi lépp loo xam ne gis nañ ko ci ay rëq-rëq ñu ñu koy wax bu ko defee ëllëg ñu koy bàyyi xel danañu xooli lenn ci borom xam-xam yi dëkk bi ak lenn ci kilifa yi ñuy diglu seen kàddu nu ñuy dégg di leen wax ñu ñuy diglul waxtaan wi ñu ci bari sax bala ngeen ko wax day fekk ñu koy diglu mm-hmm. di la ci jox ay seetlu seetlu yooyu yëpp dañ ko jël ginnaaw nag seetlu yooyu yëpp da ciy am te comme ni ko kilifa yi waxee sànq ñu ko waxee léegi ne fii moom daanaka lépp ñëpp ndax yëfi yàlla la jumaa moom yëfi yàlla la waaye nag day loo xam ne murid yee ko jëmmal ñoo koy saytu ci seen ndigalul sëriñ sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ak ñi nga xam ne ñoo ko teewal ci kaw suuf te ka ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha di bokk ci ñi koy diglu bokk ci ñi nga xam ne toujours tamit saa yu ne mi ngi ñu ciy jox ay orientation ak ay ndigal comme ni ko Muxtaar waxee léegi loolu tàmbale woon ci sëriñ Saalihu ba ñi fi jaar ñëpp ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ñu koy ñaanal suñu borom gën koo dëgëral gën koo yàggal gën a yokk taxawaayam waaye dafa am leneen nag loo xam ne dafa rax ren ci koor gi te bokk ci liggéeyu commission culturelle muy ay tàggat ay formation yoo xam ne dañ ko bëgg a defal ñi nga xam ne dañuy yëngu ci jumaa moo xam muy ay noddukat moo xam muy ay imaami ratib moo xam muy ay xutbakat loolu jàpp nañ bis boo xam ne incha allah muy alxamis ji njëkk ci koor gi bu ñu waaree ba ca suba sa wala ci gannaaw suba sa alxamis jooju alxamis ja ca tegee bëgg nañ liñ fee dajale incha allah gannaaw tusbaar ànd koog daayira bi yëpp commission yëpp dalal leen waxtaan ak ñoom ci bu loolu jàllee ñu xool it nu ñuy liggéeyee ak ñoom. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, sëñ Abdou Lahad euh, jërëjëf sëñ Abdoul Khadir sëriñ jërëjëf euh, sëriñ Jili Bousso mi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu caméra yi ak réalisation bi. sëñ Fallou Sow ak mboolem ñi ko seqal mbokk yi lii lekk lañ leen tànnaloon fii ci jumaa ju tedd ji e, ci tuba ngir fas yéene ànd ak yéen ci weeru koor wi e, ni ko e, sëñ Jil waxee fu borom xam-xam mën a ne ci biir adduna bi tey xam-xamub lislaam bu amal njariñ doomu aadama daayira Muxaddamatul ma mi ngi lay tàllal loxo waaye fépp foo xamante ni nit kuy defal yàlla ma nga fa te eh, alal jami yor mu bëgg ko ko joxal ci néegu yàlla bi wala mu jox ko jaami yàlla yi mu xadamatul xidma mi ngi lay eh, tàllal eh, sa loxo waaye nag ni ko sëñ Maxtaar waxee mbooleem fu ab groupe communication mën a ne ca la muy communiqué doon loo xam ne njariñul doomu adama yaa ngi ca njariñul lislaam nga ca day mu xadamatul xidma mi ngi lay tàllal loxo kon mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom defal ñu koorug jàmm yàggal fi sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na wér gi dolliku yàlla na ndogu li yomb waaye yal yàlla jële fi mbas mi bi barakati cheikhuna ahmadul xadim yal na wàll yàlla wàcce jàmm ci réew mi eh, def fi xiiwal goo xam ne duutu fi bàyyi ko ba adduna yi tukki eh, ci ci barkeb Serigne Touba mi ñuy liggéeyal yal yàlla sàmmal suñu taalibe eh, saxal ñu ci liggéeyal cheikhul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.